kenn ci ay taalibeem ñu koy wax sëriñ Malick Bassine si te lépp jëm ci genn fànn suñu xikmab tey nag mbokk yi ñoo ngi sàkku ku ko déglu ku nekk nga jottali ko sa mbokkum jullit ndax bu ñu sañoon ñëpp man koo jariñoo ku ko def ku nekk yàlla na lu suñu borom tabaaraka wa taala dimbale ba nga xam dara te am dara te doon dara xikmab tey nag da ngeen ci dégg baat boobu lu bari ñu koy baamu muy baatub dara moo tax mat naa bàyyi xel mbokk yi koo seen muy dox ak wax ak yëngu dafa bëgg xam dara wala mu bëgg am dara lu muy doyee xam dara ak am dara xanaa bëgg a doon dara eh, sëriñ Touba sunu yaakaar mas naa dégg ay gone ñuy waxtaan seen waxtaani gone ak di fo ba mu ba tolloog fa ñu ne daal di fëgg perma daal ne ànduñu ne fii ñu ne ko xanaa ñun mu ne leen lu ngeen fii def ñu ne ko dara mu ne te bëgg dara mbokk yi kon ku bëgg dara faaw nga def dara te bala ngaa def dara faaw nga xam dara doog a mën a doon dara sëriñ Mor Khady si ak sëriñ Malick Bassine si ku tedd ki mas na leen liggéeyloo liggéey boo xam ne nii ba ñu ko liggéeyee ba noppi ba ñëw di ko jébbale si ànd ak seeni taalibe sëriñ Touba. daf leen a wër ñetti yoon ne leen ndaxam mos war ngeen sant seen boroom ñu ne ko alham ñu ne alhamdulilahi rabbil alamina mu ne li tax ngeen war a seen seen boroom kat dafa fekk ne seen borom boobu moo def ci yéen ngeen bëgg dara mu yebal leen fu am dara ngeen def fa seen dara na leen wóor na da ngeen am dara. Sëriñ Abdullahi Mbacke borom dër bi lu mu waxoon dafa waxoon ne nangeen nangoo jàng. ndax ngeen xam dara na ngeen nangoo liggéey ndax ngeen am dara ku boole xam dara ak am dara faw nga doon dara sëriñ Malick Bassène si dëkk bi mu mujj sanc ñu koy wax mbaabaan murit ba mu ko sancee ànd ak lenn ci ak njabootam ak i taalibeem wéetaayu sanc ba ak jafe-jafe sanc ba tax na ñu ne ko sëriñ bi fii de dafa wéet fii de dafa sori mu ne leen dafa amagul dara fu amul dara rek ay sore waaye foo am dara du sori ñu ne ko waaye dañ fee amuti bokk mu ne da ngeen a amugul dara ku amul dara du ami bokk waaye ku am dara ami bokk te mbokk yi koo ne xamoo dara mën naa am mu woyof ca moom ba mu mën koo muñ ne amoo dara mën naa woyof ca moom ba mu mën koo muñ waaye koo ne doo dara attan naa xeex ak yow kon yàlla na suñu borom tabaaraka taala dimbale ba teg ñu ci yoonu wi maye dara te am dara ndax ñu doon dara te yoon woow mooy liggéeyal sëriñ Touba ndax Serigne Touba kan mooy dara sëriñ Malick Bassinde daana tënk ay waxam di wax dara dara dara dara ba muy ñeent yoon bu ñu ko laajee mu ne koo seen mooy dox day wut dara te fekk amul dara du tal dara te bu amee dara dootu am soxla ci dara daana xam ngeen luy dara ñu ne ko déedéet mu ne Serigne Touba mooy dara. kon nag yàlla na la suñu borom tabaaraka xiir ci ñu liggéeyal sëriñ Tuubaa ah, ndax ñu am dara ba mën a doon dara ñoo ngi sant bu baax nag mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci jàppale gi ñu jàppale waa daaray Hikmatul Yawmi lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir ñoo ngi gis bu baax ñu bokk ci association bi ak ñi ci bokkul nga xam ne ñoom li leen yitteel rek mooy fu ñuy dégg dara def fa seen dara ndax ñu am dara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 wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim